violence bi am ci seen politique bi actuellement. waaw bon je pense que dinañu ko xeex suite bi li seen Saliou wax rek loolu lay wax que dëkk bi euh, justice bi nit ñi wóoluwuñ ko mais euh, comme li mu wax ñun sant yàlla ba ñu yoree suñuy bakkan parce que mel ñu ni Fallou seen mm. mi nga xam ne amatul soit wax. donc c'est la raison pour laquelle ñu war a wax ñun fekk ñu ngi mën a wax donc euh, on va se battre dinañ def recours yi nga xam ne yëpp moo war a am ba fi nga xamante ne foofu la yem. Euh, concernant les violences euh, monsieur bi nu mu tudd. Amadou. Amadou monsieur je crois que quand même di wax waxu nervi di def parallélisme entre le chef d'État et l'opposition c'est pas acceptable parce que président Macky Sall. Euh, euh, il a l'armée j'ai pas di wax ne euh, dafa am ay ay gros bras sécurité rapprochée di ko di wax ne président defu ko fi le premier amoon na depuis temps Senghor dama ni. di méngale ñaar yooyu du lu xel mën a nangu parce que président de la république dafa yore armée yore police yore ay forces spéciales. Mhm. ambulance sax da koo yor. bien sûr président Macky Sall buy génn di doxantu ñaari ambulance dañ koy topp man leer na ma ne sax bu mu tudd di d'hygiène sax dinañ ko jaarale ci moom pour mu koy pompel yooyu kooku soxlawul di recruter ay nit wala sax ay ñoñam ñu ko wër. di recruter ay sécurité autour de lui il faut qu'on on ne justifie pas la violence. Euh, donc. Euh, il bu ma déggee. c'est un rappel des faits. bu ma déggee parce que dañuy wax ne dañu gis ay nervis ñu gis leen ci champ politique bi autour du président Macky Sall ñu bëgg a def comparaison avec euh, opposant bi nga xam ni comme ni ko sëñ Saliou waxee léegi dafa jël ay nit yoo xam ni dañu koy yoreel sécurité am wax na ko léegi je pense que dans tous les dans tous les pays respectables. soo demee élection nit ki jël deuxième troisième war naa mën a am ay ay détachement yoo xam ni dañu koy accompagner gis nañ fi ci élection euh, présidentielle yi les candidats eux-mêmes pour ñu am ay ay ay ay gendarme il a ñu attaqué fi ñoom Issa Sall côté Tambacounda ba ay problème am ci mm. pour ñu doog leen détaché ay sécurité yoo xam ne ñun ñi ñoo ko moom mm-hmm. waxuma la nag euh, tey euh, ñu war a def ne dañu war a wax ne non daan na fi am képp ku nekkoon ci opposition bi noonu nga war a mel kii mooy le chef d'état mm-hmm. le chef suprême des armées ce n'est pas pardonnable que ñu que ci ci ci ci ay ni mu tuddu ci moom autour de lui moo xam mooy organiser moo xam mooy meeting moo xam mooy déplacé wu ñu ci violenter ay citoyens te moom jëlu ci ay sanctions fermes même s'il n'est pas garant de ça même su fekkente ni du moom moo ko santaane à partir du moment où gis na ko dégg na ko li mu war a njëkk a def mooy déjà sanctionné et que loolu arrêté mais gis nañu ko durant tournée bi yëpp loolu la ñu gis ak moom. Mhm. loolu nag mooy li nga xam ne mënuñu ko accepter surtout que dañu nekk ci jamono joo xam ni on nous parle de terrorisme. Mhm. jamono boo xamante on nu parle de force occulte. jamono joo xam ne on nous parle de ay nit ñoo xam ni soi-disant ñoom rek ñoo leen gis ñu ngi ci réew mi bëgg a déstabiliser réew mi. Mhm. kon nag ñooñu bu fekkente ne ay nit ñu ñu gisul ñoom lañ ñu indexé ñun ay nit ñu ñu duut baaraam gis leen ñu dóor ay nit ak i loolu dañu naan carrément dafa nekk loo xam dañu bëgg mu dàkk parce que nag Euh, président Macky Sall mënul am monopole de la violence moom la c'est le dernier parce que ministre yi ko wër yëpp am nañu sécurité boo xamante ne euh, dañ leen ko attribuer kon pourquoi ils ont besoin de gros bras pourquoi ils ont besoin waxuma la sax de de mais d'hommes armés yoo xamante ne dañuy dañ leen di accompagner pour lan à quelle fin si ce n'est justement pour euh, xoqatal population bi c'est quand même indécent que chef d'État boo soxlaa réew mi nga mën a jaxasoog askan wi wàcc dugg ci seen biir jox leen loxo añ ci seen ay añ reer ci seen ay reer boo demee ba nekk chef d'état nga war a obligé ut une milice autour de toi boo xamante ne moom mooy tax askan wi du mën a am accès ci yow loolu c'est déplorable seen montre vraiment impopularité am mhm. rafetlu wuñu violence boobu te ñu ngi araftu nag kii de droit mhm. parce que surtout ñun réew mi fi ñu toll nii mhm. ku am la naqari kilifa diine ngay araftu donc ñu ngi araftu kilifa diine nañu wax ci loolu parce que nag wax ji wax ji mënu koo suul. te gis nga bu ñu bëggee popula euh, euh, citoyen bi du fayul boppam. Mm-hmm. il faut que ki ëpp doole buy doole ñu téye loxoom. te actuellement président Macky Sall moo yor doole ji. ndaxte moom moo yor armée moom moo yore la possibilité de de maintien de l'ordre mm-hmm. kon nag moom la ñu war a téye loxoom mu dàkk sinon on va vers des locales et ça risque de déborder. parce que képp koo xamante ne xam nga ni boo génnee dañu lay dóor yow it di nga dem wuti ay nit ñoo xam ni soit ñoo yor sa kaaraange soit ñoo lay fayul loolu nag day indi instabilité ci réew donc vraiment pour euh, pour ne pas arriver à certains excès il est temps de de de sonner l'alarme et que cela cesse alors euh, Omar Faye euh, justement parlant de ces de ces nervis yi euh, sëñ Saliou mu ngi koy déplorer tout à l'heure peut-être euh, kii di général Moussa fal bi ñu euh, installé officiellement lu tax peut-être addu ci par rapport à ces à ces nervis yow installation boobu peut-être amoon nga yenn kàddu yoo ciy sànni. waaw bon Moussa Fall. ak analyse boo ciy def cest dire du ma ci du ma ci waxagum. mais dans un pays. si c'est l'ordre qui crée le désordre ça devient grave. mënoo bëgg a créer ordre créer te sénégalais même bu ñu nekkoon mille personnes benn gendarme mën na leen delloo ginnaaw. am na nooy waxee ñoom rek ñu dellu ginnaaw amuñu problème mais man dama yaakaar ni xanaa dafa am prime si bu ñuy sànni lacrymogène wala bu ñuy dóor nit <coughs> pour man boo dóoree da nga ciy am prime wala boo sànnee lacrymogène da nga ciy am prime bu fekkee dañ ciy am prime ñu wax ñu <laughs> parce que amul lenn parfois lu bu ne motiver à ce que ñu dóor. wala à ce que ñu sànni lacrymogène dara dangay ngay ñëw ñu def la ko et ça c' est grave maintenant li ñu def mais mën a busa mii keroog metti nañu ak journaliste bi. Alassane Balde Alassane Balde ça nous a fait mal parce que amul lenn lu war a mën a tax ñu def leen dara. nit ku ne bu waree ñaxtu dépassé nañ fu ñu ki di ñaxtoo ñu lay dóor wala ñu lay saaga wala ñu la wax wax ju bon. c' est pas l' appel neex na neex na waxal boo waxee ak moom rek mën na dellu ginnaaw sans problème. maintenant l'histoire des nervis peut-être c'est à des niveaux à des niveaux différents avec le régime certes c'est le président de la République qui se déplace parfois il a l'armée il a la police il a la gendarmerie il a des nervis mais ñoom ñëpp dañu am ay nervis ñoom ñëpp mooy ñan may leader yi yëpp c'est à des niveaux différents parce que parfois di nga ñëw à des manifestations gis ku ànd ak vingt nervis ngay ñëw di taxaw ñu la même dans des manifestations où man je participe à des manifestations de l'opposition où les gens viennent donc ça doit être réglé globalement ce problème des nervis là c'est ça le fond du problème moi moi moo tax man je demande à ce qu'il y un débat national mhm. sur la sur sur sur le problème de la sécurité et sur, sur le problème des nervis pour que définitivement que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités et que ces problèmes là soient wala ñu réglementé ko wala ñu xool bonne solution. kon pour yow autant l'opposition autant l'opposition cest à des niveaux c'est à des niveaux différents. kan opposant par exemple moom exemple mais su ñuy wax nervi yi su wax nervi yi aussi su ñuy wax loolu bi parce que on se trompe peut-être on se trompe peut-être sécurité wala nervi. voilà cest à sécurité bi non moom la ñu tuddee nervi rek. ah parce que problème moom la ñu ma sœur xam nga xam nga xam nga xam nga situation amul ku siy déplacé wu du Sonko du Bougane du du Massam même ñi dem si ngénte yi sax dañuy ànd ak néeg yéene sax. non wax néeg yi mais Omar Omar suñuy wax néeg bi wax néeg bi Omar mooy ñiy attaqué. non Omar Omar wax tamit euh, quelque chose est-ce que nekkuñu di confondre wala euh, di di di juum ci mots parce que nerf soo déggee ñuy dem bay wax nerf yi mooy peut-être ñi di attaqué. di ah, am nga possibilité am force sécurité parce que même ñi ànd ak président la République fekkoon attaqué wu ñu kenn ça n'allait pas poser de problème. il y a la police il y a la gendarmerie. c'est là où je voulais en venir est-ce qu'il y a un problème de confiance. Mhm. qui existe entre entre le président entre président de la République. oui la police et la gendarmerie. pour qu'il puisse avoir des gens yoo xamante ni dañuy taxaw yor ay gourdin di dóor ay nit c'est là où je vais en venir. c'est là maintenant n'a rien à voir avec le problème de la sécurité. c'est-à-dire que tey jii dama lay fa defar. Mhm. tey jii quand Omar Faye se déplace. mais daam mi sa yenn saa yi mu ànd woon kese ñu ne ko daam na nga génn yow kese. chaque jour ñu wax dama leen expliquer loo xamante ni xam nga wax ni Serigne Sall def noonu man du ma man damay wax li nga xamante ni laa war a wax dama naan fii muy man ak muy keneen bu fekk non ça veut dire que mu naan ay il faut faire la différence entre l'histoire des nervis bi il y a pas de différence non je regrette je regrette je regrette il y a pas ma ne man je participe à des manifestations yow dama ne dama ne yow Serigne Sall dama ne la xam nga non dama lay wax benn affaire dama ne la man dama lay wax lu leer dama ne la amul benn leader actuellement dans ce pays mhm. même ñun ñi di xamante parfois on a des po des positions non waaye dafa de dafa waay c'est un la après di wax ma ne la c'est un problème de ñii la ñuy wax gros ñii wax neen man maa la wax lu mel nii tey jii lañ mën a taxaw ne ma Samba tant Ablaye Wade man mais ça ma ma ne ma ne man sama bopp bi fi Ablaye Wade nekkee dañ ma daan cueillir chaque jour à Rufisque <laughs> c'est des gens qui se déplaçaient de gros bras qui venaient me prendre Pourquoi Donc, non, on ne parle pas de ça. Je ne veux pas histoire. Mais je veux dire que yo, ça doit être banni. Parce que c'est à tous les niveaux. Donc, on va bannir. C'est-à-dire que l'homme politique puisse se déplacer sans problème avec ses militants, sans qu'il soit accompagné de forces de sécurité ou bien de gros bras. parce que gros bras bi ak nervi yooyu amul différence mais ñun li ñuy li nga xamante ni ne moom la ñu dénoncé mooy le fait que que le convoi des gens accompagné de gourdins ñu kii ay gourdins devant les les policiers et devant les gendarmes ñuy dóor ay nit loolu moo dul yoon loolu c'est inacceptable mm-hmm. mais le problème le problème loolu mooy nga xamante ni moom la ñuy dénoncé bu la neexee nga encadré bu la nga def dara mais di topp ay nit di jël ay ay gourde di dóor police taxaw gendarmerie taxaw loolu dama ne du yoon mm-hmm. mais sur le problème de la sécurité comme ku nekk ne day assurer sécurité mm-hmm. mais léegi ñeente yi sax dañuy assurer même mariage yi léegi da ngay gis ay nit yoo xamante ne bu ñuy génn léegi dañuy ànd ak ay nit ay gros bras loolu moo am. aller dans les mariages ou dans les dans les cultes. pourquoi tout cela. alors que nous avons notre police qui est là. Mhm. alors que nous avons notre gendarmerie. maintenant xam nga da ngay dégg ñu naan le cas du général Jean Baptiste. oui. moi j'ai entendu beaucoup de gens parler de ce problème. Mhm. oui c'est à cause de ce qui s'est passé au niveau de Carmarche. c'est parfois même l'histoire du, du Camerounais là, qui a infiltré un peu la sécurité présidentielle, comme je ne sais pas. Ça dépasse ça. dafa am ñoo xamante ñu nekk ci à des niveaux d'information. Mhm. yem foofu. Serigne Saliou mi il n'ira pas jusqu'au loin. et Jean-Baptiste même le général n'ira pas jusqu'à loin gis nga gis dafa am dafa am situation yoo xamante ni. bu ñuy xësee bu ñu non dafa ndànk rek parce que dama lay dama lay déglu. dafa am ay situation yoo xamante ni nan ne. mais pourquoi tu cites son nom. non parce que a donné ses points de vue par rapport à ce numéro il a dit tout de de la sécurité. le cas de Jean-Baptiste dépasse. la manifestation du 4 mars. dépassé de Jean-Baptiste. man maa la wax lu mel dépassé wu ma ko parce que waxuñu suñu mhm. si wax. d' accord waxuma suñu passé dama ne la. si très rapidement. moo tax ma ne la très rapidement laa si wax dama ne la. gis nga débat boobu. sur le limogeage. on va y revenir te dinañ ci wax dama ne la. Mhm. buñ ci dinañ ci dégg loo xamante ni ne dafay jéggi dayo man maa la ko wax de. comme lan comme lan attention de. non dafa dépassé loolu. attention de. c'est un problème très sérieux. oui mais comme quoi. non nee na. ah c'est un problème très sérieux. c'est un problème très sérieux te bëggoo wax comme. non bëggul sali non pour def saliser xam nga xam nga dafa am wax yoo xamante ni boo ko waxee mën na créer lu xamante ni ne day indi insécurité. d'accord moo tax doo bëgg a parfois di expliquer yenn affaires yi. mais dafa am yoo xamante ni au niveau au niveau de au niveau de l'armée mhm. am na yenn débat yoo xamante ni ne. buñ ko soulever. ba am yenn secret yu génn rek dina mën a day créer ay conséquences yoo xamante ni baaxul. d'accord donc tu veux dire que tu veux dire que euh, il a été sanctionné en quelque sorte. non bu baax. d'accord. Mmh. attention de. waaye mooy waxal nga naan ay sanctions. yow ngay wax kenn du la wax dara nga naan ay attention c'est toi qui dois faire attention. yow moom loolu neex ngay wax yow c'est pas entre vous deux daf la daf la daf lay wax rek nga def attention waaw moom moo war oui mais euh, euh, Cheikh euh, justement par rapport à ce à ce Omar Faye s'il te plaît. may ñu ñu yeggali suñu débat laata may ñëwaat ci ci ci ci invité yi oui Cheikh Omar. alors Néna Aïcha permets-moi de relayer le cri actuellement ils sont à la prison ñu ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. ces Sénégalais c'est vieux Diop. vous vous rappelez de Vieux Diop en 2019 mooy transitaire bi waxoon ni gisoon drogue ci oto yi ñu indi woon mu dem wax ko douane douane sénégalaise mën a jàpp record boobu ñu jàppandoo leen woon ak ay nasaraan ñaari allemand ak italien allemand yeeg italien moom nee nañ meng ni meles hmm. nguuru Sénégal baleen mais doomu Sénégal yooyu 2019 ba tey ñu ngi ci kaso bi lettuwuñu leen firiwuñu leen te moom mi jëloon risque pour dénoncer fait yooyu jëloon na risque si njabootam ak ci ñeneen donc moom ak ñi mu nekkal ñëpp dañuy wax autorité judiciaire yi mhm. longue détention préventive yi jël mhm. ay nit tey leen foofu mhm. te waxuñu leen leer ak kumba am ndey kumba amut ndey parce que bu ñu munee bàyyi ay allemand ak ay italien doomu Sénégal ñu tey leen fi te waxuñu leen dara te su dul woon ñoom amaana douane bu gis loolu mu jàpp loolu je tenais à dire sa beneen bi ci wàllu violence dañu am violence institutionnelle institutionnalisée c'est la violence qu'exercent les États sur les populations c'est la violence de la domination de l'exploitation même oui. sànq dama lire sax ma gis ni filao yee ñu dagg syndicat xawma cadastre ñoo fa nekk ak impôt domaine filao géejawaay sanu sidu si am de boo demee moom daa luwe mais fee dagg ñan mooy système boobu ñu exploité nit ñi wala souffrance sénégalais beneen violence bi am mooy population bi gisuñu seen bopp ñu exprimer ko beneen violence bi am nag mooy la violence répressive maintenant su fekkee état yamatul ci gendarmerie ak police ñi nga xam ni ñoom ñooy incarner état mën a utiliser ay nit du lu ñu wax comme on parle de fait Saint-Louis xaar yàlla ñoo xam ni ils sont victimes de foncier amuñu occasion gis le président pour ñoom c'est la seule et unique occasion bu ñu am pour mën a exprimer wu. moi quand vu la femme son visage balafré dañ ko dóor vous allez voir sur la page de Mary Teuw ñaan photo daam bi mu ngi foofu tey président toog 30 ans de sa am ne du ma gis morceau bu xonq te li indi woon morso bu xonk comme dañuy def les faits Ablaye dafa ne woon baax na comme asiatique yi au lieu que ñuy grève wala dara ku takk morceau bu xonk message la Macky moo toog ne buggul gis du gis morceau bu mm-hmm. bu fekkee déplacement bi ñu doon wax tournée économique la mais rax na politique les gens dañu am cadre d'expression bu ñu amul il faut que ñoom ñu mun am cadre bu ñuy waxee. mais su fekkee ni da ngay bañ kenn wax mooy nañu museler Sénégalais yi nañ leen empêcher seen liberté d'expression yàlla sax ci boppam am na ñu àndul ak moom am na ñu ko gëmul. c'est-à-dire démocratie sénégalaise bii lii ñu ñu bëgg a indil mooy une un danger xam nga yaa ngi koy wax élection présidentielle. Mm-hmm. un des candidats dafa am fu mu dem ñu janoor ak beneen cas nga gis ñu mel ne ay Nimza ba nit faatu ci il a fallu médecin après la mort pour que ñu détacher des éléments du juin GIGN pour ñu encadrer candidat yooyu donc pour man ça doit être un dëpp national aujourd'hui yow da ngay dox sax ñu la ay yow mbaa doo dox kenn dab la wutal garde corps fekk yow kan moo la doy garde bu dul rabbi samawaat yàlla rek ngay dénk sa bopp mhm. donc bu ñu demee ba li ñu waroon teg cadre démocratique mu war a nekk un débat d'idées mu war a nekk ñëpp accepter am tolérance son vis-à-vis mhm. kii na xalaat lii kii na wax lii même ci biir assemblée quand un député se permet de dire à un autre député soo génnee jaasi baa la fi xaar pour man kooku lu ñu waroon lijjanti la menace de mort la bu ñu toogee ba ñu exercer ko si nit ñi loolu nag du lu ñuy wër fenn c'est bien de faire l'historique mais je crois que nous sommes en la politique de 1960 ou de 80 ou PDS bi ñuy def seen congrès Malicounda attaqué nañ leen wala et cetera on ne peut pas revivre ça mënuñ ñu delloo ginnaaw fii ñu toll nii moi je considère que euh, bu ñu weesoo loolu nañ dem ci bavure policière yi nañ ko waxante soit on a une police coloniale sénégalais duggal police ñu bëri ñemewuñu dugg police pour wut sax carte d'identité le ton la tonalité l'agressivité et même le verbe le comportement vis-à-vis du citoyen police bi si boppam sax violon bu buñ la fa fanaanee si wasoor bi fa lay ne boo fa buñ la fa boo jaar fa nga tuberculose cette violence dañ nen de sénégalais yi bu ñu xalaatee jeunes ñun bu ñu mat si nawetaan nag yépp fii piki nag fu la neex bu la bu la bu la bu la jeunes yi daree bu la kii di mbéj mbaa kii di say fàllare wala say faar peut-être may mun a busoo am na fu mu mun a waxee wala xam wala am na mais qu'est-ce qu'il cher Omar pour un changement. mais euh, changement boobu déjà ci ci ci ci loolu yëpp. ma ne loolu yëpp on a une société violente. sànq grande gueule qu'est-ce qu'on dit ay lycéens yi demoon football yi dóorante birig kenn ki faatu. Mhm. on a violence ñaari xale jigéen xëccoo far kenn ki génne